ñu koy jaal bu baax ndax dafa am euh, ku wàññiku ci ay mbokkam di ñaan suñu borom euh, jéggal ki faatu te yàggal saraxam ci seen loxo ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ñoo des ci kaw suuf euh, Ouzin maa ngi lay nuyu bu baax mu ne nga taal sa waxu waxu bi. nuyu àll bi nuyu Xadija nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi mm-hmm, noonu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Xadija maa ngi lay nuyu. Alioune Badara di jàll jaajëfal nuyu Ousin ak internet yu Sen Teranga TV yi ñu bàyyi xel fii ci Sen Teranga mbégte lay doon ak contentement teewaat ci Teranga actu bi comme ni ñu koy defee tous les jours. liñ koy defee waxtu jot euh, ci euh, lundi ba vendredi lay doon 16h jàpp jëm 17h ñu ànd ak yéen euh, ci xibaar yi biir réew yi waxtaane ko ak yéen dana mbokk ci biir xibaar yi lu ñu war a waxtaane jëm rek ci xabaaruk tay jile yemoo ko àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mais atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent foofu foofule ca CDC la ñuy jubali Xadijatu jonnu mel na ni am na ay xibaar yu circulé dem ba léegi di wax ni ab scandale mooy la fa am plusieurs milliards yoo xam ne daal jot nañ ko fa yuubal ci euh, teewuk Issa Sall ma fa nekkoon mhm, foofee nag euh, ca diwaanu Caisse des dépôts et consignations benn scandale du siècle la ñu daal di wax détournement et fraude ci lu tolloog ay milliards yu bëree bëri foofa la ca direction boobu nga xamante ni bi rek Cheikh Issa Sall moom ak ay complice am di MS ak ki nga xam ne mooy BND ñoom ñoo ko daal di bokk mu ne scandale boobu nag daal di nekk scandale majeur boo xamante ni bi rek ñu ngi ko daal di mu ngi daal di éclaté foofee ca Caisse des dépôts impliqué ki nga xamante ne bi rek mooy ancien directeur ba fa nekkoon di général Cheikh Issa Sall ma nga xam ne moom la daal di taqal mu am ay complicité yoo xam ne ñoom la bokkal M Silla ak ki nga xamante ne bi rek benn homme d'affaires boo xamante ne moom ni mel ñu wax que ne moom dafa nekk koo xam ne moo créé société foncière frauduleuse boobu nga xam ne ca la jaare pour mën a détourner xaalis bu ni mel mën a société booba nag dafa nekk euh, li nga xam ne moo chargé pour vendre illégalement yenn terrain euh, warum suuf ak euh, utiliser ya nga xamante ne bi rek mooy au beau yoo xam ne waruñu ko daal di teg ci yoon ci anam goo xamante ne bi rek mooy méthode escroquerie bu jaarul yoon bu doy waa boo xamante ne bi rek fa la ñu jaare pour mën a détourner fonds publics yooyu ci ay fins personnelles wala familial bu ne bu boobu nag daal dinay porter plusieurs milliards yoo xam ne moom lañu daal di euh, fësal ñi ko def nag euh, di ay lien wala politique ak potentiel yoo xamante dafa daal di soulever sérieuse question yoo xamante ni bi rek teg nañ ko jëm ci nécessité réduction bi ñu war a amal ci compte boobule ñeen ñi nga xam ne ñooy nouveau régime bi te ñu war koo daal di taxawal ci na mu gën a gaawee pour ñu mën a xool la nga xamante ni bi rek moo waral mbir mu ni Mm-hmm. muy loo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci ay xibaar ñi ko démb ba léegi ñu koy waxtaane euh, waaye mel na ni am na beneen xibaar boo xam ne euh, je crois que information boobu ñi ko njëkk a génne bokk na ci suñu naataangoo yoon nekk ca sans limite suma juumul mm-hmm. moom Cheikh Issa Sall mi dafa mel ni euh, ci yenn xibaar ci yenn journal yi xëy fësal ci seen xatu njëkk tey mu ngi firndeel ni daal dinay porte plainte jagleel ko ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk ca sans limite xëy na dinañ ci gën a ñëwaat ngir gën ci am ay information yu gën a leer euh, mhm. lu jëm itam ci mbirum personnel bu group d média am na xewit bu fa xew euh, ki ci dikk mooy Adara Sow Mm-hmm. Adama Sow nag daal di ñëw ca la nga xamante ne bi rek mooy information ba xew ci diwaanu ca diwaanu personnel bu D-Media moom nag nee na depuis ay fan yu yu gàtt ci ginnaaw lii di groupe D-Media daal dina def objet benn harcèlement jëm ci par nouvelle autorité yi nga xamante ne bi rek ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi mu ne dossier fiscal boo xamante ne rek D-Media euh, bien que li nga xamante ne bi rek mooy dossier boobu demoon na ca diwaanu justice ba ñu defoon ci benn ouverture jëm ci service fiscaux yi nga xamante ne dañ koy daal di réclamer

institution sociale la ñu ñal seen pays boobee chaque salarié daf du groupe euh, des médias am na possibilité ak loisir vérifier li nga xam ne moom ci jëme boppam la nga xamante ne bi rek mooy situation de nouveau caisse de sécurité euh, ba nga xamante ne bi rek moom lañu ñu daal di bokk moom muy wax que ne ñu ngi euh, ñu ngi pare pour engager jëm ci travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe des médias pour assurer li nga xam ne mooy soutien ak seen soutien indéfectible bu ñu war am pour réussir seen mission d'information vers les Sénégalais boobu xamante rek moom moom la ñu daal di gardajo mu ne direction bi nag daal dinay jóg ci ay ressources humaines yoo xamante ne da koo daal di téye ci disposition euh, jëm ci bépp information bu ñu war joxe mu ne compté nañ nag ci li nga xam ne mooy sans élevé pour responsabilité yi nga xamante ni bi rek bëgg nañ ko am ci ay information yi ñuy partagé euh, pour trouver li nga xam ne mooy place publique bi pour le moment mbir ma nag ñu ngi ko daal di xamle le 28 euh, mai bi ñu génn harcèlement nag lañ ko tuddee mhm. euh, ñoom ñooñu le Ousin mhm. mbirum D-Media groupe D-Media la ñuy wax mhm. jàpp nañ ne harcèlement lañ leen di defal jamono jile ak autorité yu bees yi fi nekk bon en fait bu fekkee dañuy topp logique pour logique parce que xam nga Bassirou Diomaye Faye bu dee ci wàllu impôt yi Bassirou Diomaye Faye annoncé woon na sax ci ni nga xamante ni moom mooy euh, ci durant campagne bi waxoon na ni ñi nga xamante ni euh, presse bi nga xamante ni président Macky Sall daf leen dalal ci li nga xamante ni jëm ci wàllu impôt la bu fekkee daf leen bàlay impôt loolu du dëgg du yoon même bu fekkee euh, loi bi ak moom li koy li koy téye ci kat kiiraange moom président Macky Sall du yoon a une semaine de l'élection présidentielle nga dalal fii ñi nga xamante ni ay patron de presse pour benn objectif kese muy jéem leen a xool noo leen di neexalee ndax boo xoolee dette bi nga xamante ni mi toll si 40 millions si côté impôt bi boo xoolee ci année 2023 bi la donc ñu ngi dugg ci année 2024 ñu ngi nekk ci 2024 bu fekkee 2023 yi fay ñu ko ba dugg 2024 nga taxaw ni da nga leen koy baal parce que tout simplement élection yi dafa ñëw bu fekkee Bougane def ci laale pour man c'est pas du tout xëy na logique laa mën a wax ñuy xalaat ni euh, acharnement la su fekkee aussi dafa nekk date boo xamante ni si jamono yi jamono bu yàgg la au delà di at yu nekk nii wala bu fekkee xamante ni yoon da ko évacuer ba pare jox dëgg li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy D-Média waaye bu dee impôt la boo xamante ni D-Média ko war a fay état bu Sénégal pour man jàpp ma ne acharnement mi ngi si parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite nguur gi jamono ji dañu maîtriser wàllu impôt te et puis comme liñ leen ko bàkkee ñu ñoom ay nit yu jëm lañ ay nit yu ndax ku ci nekk nekkoon nga directeur des impôts pour man amuñu benn euh, lu ñu ci am intérêt si ñoom ni dañuy bundu xatal euh, Bougane wala dañuy acharné wu ci kanam Bougane gisuma intérêt bi en fait gisuma hmm. intérêt wu état bi toog nii ni dafay viser ki nga xamante ni mooy Bougane parce que amagul le lu leen lié lu war a tax état bi di leen viser man gisaguma fi Euh, des médias acharné wu ci état bi bon xëy na ñenn ñi mën nañ jàpp ni ci par rapport seen invitation si yenn jour si yenn invités yi chroniqueurs yi wala yenn débat yi bon pour man dool dafa baax si démocratie mais quant à acharnement euh, jëm ci des médias jëm ci état bi gisaguma ko lu war a tax bundu xantal di am seen diggante ñoom ñaar pour man daal dama jàpp ni yoon la euh, yoon moo nekk di def liggéeyam procédure yooyu noonu mais pour gën a am information yu ma leer pour le moment daal jàpp naa ne xëy dañoo njort rek ni acharnement buy waaj a ñëw la ñu ni xaaral ñu jëm ko kar pour yuuxu wàllu en attendant mbir mi di gën a ëpp loxo quoi. mu ngi noonu euh, benn précision ci ak information mm-hmm. boo xam ne. Euh, démb ba tey mu ngi circuler ñuy wax ni ceeb bi nga xam ne non parfumé la dañu ko yokk mu jóge ci trois cent cinquante jàll ba cinq cent euh, kooku euh, bépp média bu koy informé itam nekkut li am maanaam yokkuwul fa mu nekkoon ma nga fa tege ba léegi ni ko dëggal nag bokk na ci autorité yi nga xam ne ñoom seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu wi ni mel waaye tam ku vérifier sa bopp di nga gis ne yëf yi ba tey ma nga fa mu nekkoon dara jugu ci muy information boo xam ne démb ba tey ñu ngi koy fësal Euh, leneen mu ngi nii loo xam ne itam Pape Alé Niang wax na ci euh, Khadija Dione. Mhm. moom li nga xam ne moo jiite RTS 1. Mhm, moom Pape Alé Niang nekk jamono juñ toll directeur général bu euh, RTS di rajo télévision.